xam ne daal moom la mbër ku ne daal bëgg a teg loolee moo gën a fës ci li nga xam ne daal jamono ji moom la ñu waajal di présidentielle bii campagne bi nag dina nekk lu am solo lool waaye nag la gën a fës mooy programme programme yi nga xam ne dana bëri ca wuute bu fekkee ne daal publier nañ liste bi nga xam ne mooy liste mujj bi bokk na ci quatre candidats yi maanaam mbër yi ñoom ñoo fas yéene programme candidat yi nag dana na noonu nag désigner ay lignes ku ci nekk daal di nga bëgg a jaay sa programme waaye tamit daanaka ñett yoo xam kat mën nañ cee fës daanaka candidat bu benn bokk yaakaar moom mi nga xam ne mën na ca bopp ba ci libéraux ak ñi nga xam ñoo yokk ci nguur gi ñoom la mu bëgg daal mooy gën a wéy nekk ca nguur gi premier ministre Amadou Ba nag moom dina am ñoom jàmmaar lool maanaam ay libéraux yoo xam ne ñoom ay courant yu bëree bëri kat wala lu wuute sax moom moo leen seq waaye tamit lañ ca mën a jàpp daal mooy ay candidat libéraux yi nag ñoom ku ci nekk daal di nga jël sa wàll ñaareelu groupe bi nag moom mooy ñi nga xam ne nee nañ ay social démocrate démocrate ñoom nag ñoo ca gën a bees sax waaye mën nañ leen dugal fa xam ne mooy ci mouvance bi ak ci ay socialiste réformateur ñi nga xam ne ñoom ñoo banqaasoo ci parti socialiste alliance des forces progrès ak wala gauche bu Sénégal waaye ñu yaakaar tamit ñetteelu groupe bi sax mooy ñi nga xam ne ñoo représenté benn ŋàll maanaam ay patriote ay démocrate ñoo xam ne kat ñoom la ñu bëgg mooy indi ak coppite maanaam changement ci mim réew gis nañ kat ndoon li nga xam ne moo delluwaat ci wàllum politique ak ci wàllum koom gis nañ sukkandiku ku ci nekk daal da ngay bakk sa mbër waaye ginnaaw bakk sa mbër nag fexe daal ba li nga xam ne mooy sa offre programmatique gën a daal di sut ñeneen ñi ku ci nekk tamit bëgg nga koo jaay naam kandaay ci groupe yi nga xam ne jot nañ leen lim muy ñett ñi ñoom bëgg na wéel ak seen orientation libérale indi ay changement waaye gis nañ kat réew mu fa mu jëm nee nañ baaxul ñoom ku ci nekk bëgg koo jooyanti waaye lu mënti xew daal mooy rek fexe ba li nga xam daal mooy indi ay changement yi wër ci wër ci réew mi loolee moom la askan wi xaar